ñëw nañ fii ci stade bu mbaaw nga ñëw di remplir sa contrat signature contrat bi dox sa diggante ak Mama Lamine bi ñu ñëwee fii dañu tardé waaye gis nañ ni vraiment ñëw ñëw nga lan moo la motiver ba nga jógee parcelle ñëw parce que man jàppoon naa ne doo ñëw fii. non man moom amul fu moo nit di woo ma respecté ñu am contrat te ñëw du ma ñëw amul man bokk naa ci mbëri gën a respecté contrat Sénégal dinaa yegg si lu yàgg di xaar sama adversaire mu ñëw chaque jour. comprendre nga comme léegi suñu nawle leen seqal dafa ñëw signé ñu war a ñëw joxe drapeau bi monsieur le ministre Abdou Karim Sall faa ñu ñëw remplacer ko euh, remplacer contrat bi mu jeex. instant jeexul. waaw ñu ngi nii di ñibbi ci jàmm. mais lan nga fi jàngat loo xamante ne tey euh, gis nga ko ci signature bi wala ay ay def na am na loo xam ne ñu rafetlu wuñ ko. comprendre nga parce que am na loo xam ne bu ko ko beneen booy defoon daf du ñu metti waaye ku toll ni abu Seck magum jëm mu toll ni moom war warul këf ay mbaxana parce que xam nañ ko bu baax mënoon naa wàcc xeex ak moom coow la mu dóor ma làmb ji mu poté ko plein mu tëju kaso bi ban njëriñ lay am waaye man damay xamal ni làmb loolu daanul mbër comprendre nga boo bëggee daan mbër da nga dem entraîné ji ba pare def li nga war a def physique pare nga ñëw bëre jàpp sa adversaire daan ko waaye maa ko gis ngeen ma xaw xanaa xaw ma Abou Seck man xam naa Mm. non tuddul seek Seck Abu Seck la tudd xam naa ko bu baax waaw ñun xamante nan ko xam naa ko bu baax mm. waaye am loo xam ne rafetul quoi mm. comprendre nga moom mag la moom bu ñu waxee tarkindaay moom la ñuy tudd kon am na loo xam ne moom moo war koo jiite comprendre waaye nag lamb moo demee noonu la quoi amul problème. juru lamb ja est-ce que du du jur ci ay lum lay def wala yu mel man de man dépassé naa lu may def euh, lool fu muy defee sama xel lool man mbër bu mag laa. comprendre lu tax ma koy tudd xam ne li mu def rafetul parce que waa di ko wax fu mu toll su defee lu ba ñëpp dégg ko comprendre nga looloo tax ma koy tudd waaye bu doon leneen du ma ko tudd de comprendre nga yooyu yëpp amul solo moom loolu lu mu wax non def dama koy rafetlu parce que dafa dem kaas xuloo ak ñoom leen lii taxul ma daan garga te effectivement wax na dëgg mm-hmm. moom bu bëggoon ma jox leen samay tubéy wala sama daal ñu yóbbu ko suñu ñëwoon laaj ma ma jox leen ko làmb lool daanul mbër. Hmm. barke alxuraan chaque fois damay dégg ñu naan ñuy ànd ak mbër dañoo bokk ci ñuy yàq làmb chaque fois dañ koy wax parce que wane nañ ko tey tey fal ji su ma téewuloon samay nit ñu dajeeg ñoom ñu xeex signaler bi du egg te ministre bi nga def euh, ministre bi nga déplacé ko ba fii hmm. wala ma génn dem ñibbi est ce que loolu rafet na mais fair play am na loo xam ne ni la presse il faut parler de la sécurité sécurité bi man pour man su may ñëw fii sécurité bi dina gën a bëri hmm. waaye nag erreur la lii avant maanaam loo xam ne ni la lu mu war engagement yi mu war a jël la ci làmb ji. Mm-hmm. parce que lii mu def nii bu ko defee làmb ji du yegg. man nga wax lan wax dëgg oh, comprendre nga kon nag Ibrahima Diop li ñu koy encouragé rek mooy na jëlaat sécurité dolli. Mm-hmm. parce que làmb dafa metti mm-hmm. xam nañ nag réglage régla réglage yi nekk dafa bari waaye nag ñu ngi koy encouragé bu baax a baax. lan ngay wax supporteru Mama Lamine yi ak say supporter parce que bis bi dafa am fu mu toll. dafa am dafa am làmb fi jaar dafa am làmb fi jaaroon lu mel ni yàqu. Mm. am na loo xam ne buñ ko defaatee. Mm. mu mën na yàqaat làmb. Mm. comprendre nga waaye nag di encourager sama supporter ba ba nga xam ne bi ma leen waxee ñu no arrêté ñu arrêté nan parce que mënoon naa leen wax ñu dëgërante ak man bopp te boobaa duma ci ban dara. di encourager ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu ku ñu mel ni Père Mbengue Aline Mbengue mi nga xam ne moo ñu jiite. ñoom Serigne ah ñoom Fallou ñoom ñëpp daal. Hmm. di leen remercier tamit yéen presse bi quoi di leen wax ni seen taxawaay rafet na macha allah. jërë ngeen jëf merci beaucoup mais xam nga a laaj Garga de Garga de combat bi dañoo jël favori bépp jox lamb lamb lamb bi man nekkuma ci favori. parce que mënu ma toog cinq ans bëréew ma ñëw di nekk favori ci kaw Mama Lamine comprendre nga Mama Lamine mooy favori moo mën moo ëpp doole waaye bu la 22 incha allah rabi yàlla dinañu may ndam. incha allah rabi te àndaale képp ak liñ da laa fas yéenee weer. maama Lamine mënuma weer newoon naa ko dinaa la paase gome la. incha rabbi gaa ngi